wasaay mbaam mi nag <laughs> booy gis nga de kor gis nga de booy eh, si ki ma lakkandoo ah ku njëkk a yuuxu ku ne da ngaa ragal na ku ne xooyam sa bopp rek sa bos ne cell waaw comme maanaam tournage yi doxatul tournée yi arrêté nañ ko te tournée amul dara amul ah Kazu Rajab laa ñëwoon Touba boobu ba léegi ñu ngi tëj kenn demul kenn dikk weccet si ma dese woon doom ci laa daal di mbaam ah lu yëpp saret comme dama di borom kër responsable te mënu ma naan al nangam wala jàppale ma ci nangam yomb naa naa wut sàmbaam da di dàq saa wërsëg lu yàlla def ma xam ne noonu la waaw te nag dama koy def ci fair play ndax par ñaari client laa yem civilisation li ñu wax ñaari client laa yem te danañ sorante ku nekk un mètre boole ko bala ngaa yéeg da nga yor masque te dama yor kii boo yéeg ma pàccal la booy wàcc ma pàccal waaw nii daal laa nekk di ñaan yàlla def Sénégal jàmm ak xéewal waaw. <coughs> Ah, déet soxna si nag doo ma wàllu mi da ngay def ndànk de. ah dañoo ngaam laa wax bu ngeen yàkkamtee nag a ma def ndànk. waa damay a yéen. waaw te nga paas la waaw ñëwal paas. paas bi da maa gën a xam couvre ah, na jërëjëf te nag du ma boole xalam ak wakkutaan da ngaan ceel nag ma dàq mbaam ñu dem acca allez di ma dang na ah, gars yi dañuy dañuy ni léegi